waaye nag kontaan wala sax euh, naxar bu euh, yéeme yéeme la ñu am taxaw fii nga xamante ni moom mooy Cambérène 2 li ko waral mooy euh, benn jeune bi nga xamante ni waxambaane la moo fi daal di ñëw suul fi benn liir ba pare daal di daw moom nag ci xibaar yu ci am dafa yoroon li nga xamante ni mooy deux te li ñuy wax tamit ci information yi ñu ci am également dafa defoon ay rasta yu ndaw bi mu ko suulee euh, bi mu ko suulee xale yi dañoo daw di ko yuuxoo mu daal di taal scooter bi daw ay mécanicien également daw di ko yuuxu waaye nag dañuy jéem a jël réaction ñi nga xamante ni ñooñu fekk gis ngeen sapeur bi daal dina jël xale bi ba daal di koy yóbbu xale bi nag ci xibaar ñu ci am bébé bi wala sax liir bi jigéen la waaye naka wala sax nit ki fan la war a mën a toll bay euh, yónni euh, góor muy tu muy suul xale wala sax fan la nit war a toll bay yóbbu li nga xamante ne mooy liir di ko daal di suul ak fi mu ko suulee fi nga xamante ni kenn amul fitu sax di fi jege di fi def yëf ju ñaaw jooju ñenn ñi sax njort nañ ñi dëkkul fii en tout cas loolu ay xibaar la yu ñuy toppandi dañuy jéem a laaj réaction ñi nga xamante ni ñoom lañu fi fekk ñu wax ñu mbir mi naka la demee exactement léegi ban réaction ngay def ci euh, li nga xam moo xew fii Cambérène xale boo xam ne bu jigéen bu ndaw buy doog a judd lan fi rey suul ko fii hmm. bon xamuñu tey la xamuñu démb la mais xale yi doon football daal gis nañ ko hmm. biñ ko gisee alerté nañ ko ki ka hmm. gis muy suul ñu kii lan lay suul bi ñu ñëwee ñu gis ko mu daw. Mm-hmm. kenn xàmmee ko. Mm-hmm. léegi nag xale bu jigéen la bu ndaw la. Mm-hmm. a nañ police. waa commissariat bu golf bu gi quinze ñëw nanu bi ñu ñëwee agsi nanu daal di ñëw ñoom it def seen liggéey nettoyé yëpp def nañ ko mu nekk loo xamante ni ñoom ñëpp incha allahu rabi enquête bi ñu ngi koy wéyal danga xam lii fan la jógee ak kan la euh, boo xamante ni euh, liggéeyu yoon la li si des nag mooy ñu Cambérène en tant que commune dinañu taxaw en tant que adjoint au maire maire dina gis li nga xamante xam nañ ko nettali dañ ko wax nga xam ni moom lañ fi jot a aussi mhm. li ma commissaire bi wax mhm. moom dina ci yàlla matuwaay mhm. mais pour dire que rek kenn musul ñemee def lii

yaakaar naa ne lieu bi mun dañ ko doon defee mhm. jeex na ñoom dañ euh, témoignage yi nga dégg fii nan nan la nan lañ ko defee fii non man nag man ma témoignage li ma li ma commissaire wax laa leen wax mhm. ku jigéen la liir la mhm. bu jigéen yóbbu nañ ko ñoom daan def seen enquête. Mhm. sa saw. mbir mi. ah mi moom doy na waar trop doy na waar trop waaw parce que ñun Cambérène lañ dëkk te lii bañ fi dëkkee ba tey musu fee am c'est la première fois xaw ma nag kan moo ko def nag mais ñun moom ñun jigéen ñi en tant que yaay ñu ngi wax yoon na def liggéeyam. parce que kii dañ ko war a jàpp kii def ko lu bon la ba pare day tilimal suñu dëkk bi parce que lii mosu fee am lii moom ku dëkk Cambérène moom def ko fi ku ko fi def sa àll ba la jóge te bëgg nañ nag yal na ko yàlla weer bàyyi laa ak bàyyi Seydi ak Serigne Touba ñu weer ko parce que lii dafa ñaaw yow nga ju sa doom ba pare ak doom nu mu méttee doom nu mu méttee yow boo xamee ne sa doom munoo koo yor mun nga mayee ko. ah sœur yaa ngi fi boo leen ko joxee ñu téye ko am na ñoo xamante ne loolu kese moo fi seen liggéey soo leen ko joxee mun nañ ko téye mais ngay def jëf ju ñaaw ñëw ba si géej gi di ko fi sànni loolu baaxul ah moo lan moo war a tax nit jigéen di toll foofu bay jël doom di ko ak doom nu mel si xol fan la war a toll quoi ci métit wala ci situation bay def loolu ah man loolu moo ma jaaxal parce que yow ak loo am situation situation situation ba nga yow nga ëmb sa doom neuf mois wasin ko war nga ko mën a téye war nga ko mun a téye ak situation boo mun ti am boo juree sa doom war nga ko mun a téye parce que doom jooju ngay sànni nga xamoo lan lay doon ëllëg. Mhm. xamoo lan lay doon ëllëg tey mun na màgg tey tey tekki ba yor la même bu amul bàyyi sax yooyu ay sit am na ñoo xamante ne seen jëkkër yi tukki am na ñoo xamante ne tamit xëy na ay dañ leen di tromper yooyu rek mais lu si munti doon nga téye sa doom lu si munti doon nga téye sa doom waa parce que doom jooju tey nga sànni tey xamoo tey lan la lay jëriñ ëllëg ba pare di nga am ñaari bàkkaar loolu baaxul man jigéen ñu mel dama leen contour jigéen ñu mel noonu man bëgguma sax ñu leen di tëj dama bëgg ñu leen di teg di leen taal parce que loolu dafa ñaaw torop ñaaw na torop. Euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo tur bi naka la. man Yacine Badji laa tudd maa ngi dëkk fii Cambérène mm. artiste comédienne. Euh, mm-hmm. naka nga gisee mbir mi. xanaa di ko naqarlu di ko naqarlu bu baax a baax ndax dama yaakaar ne ñun ñii di ay yaay di ëmb di wasin xam li ci ëmb ak wasin kii lu mu def ëpp na torop. ëpp na torop naqaru nañ ko lool lool lool ndax mi mu amee 9 mois garde ko ci këram ba doomam judd waroon naa mën a tëye doomam wala mu yóbbu ko si si kii nu ñu koy waxee si tubaab ci orphelinat yi ñu tëyal ko doomam waaw ñun nag lu ñuy ñaan mooy police na def liggéeyam te suñu géej gii dafa nekk géej gu seel la ñun Cambérène gii lañ dëkk gëm bàyyi laay ak Seydi kenn xamuñu si caaxaan kenn xamuñu si ñàkk fayda ñuy ay doom yu ñu yar liggéey lañ xam daan suñu doolee takk suñu ndigg ku jur doomam ci àll ba nag ñëw Cambérène gii pour tilimal Cambérène. da nga bëgg a wax ni euh, moom dëkku fi daal. non fii ku fi dëkk du def lii ndax fii ñi fiy nekk ñëpp xamante may leen ma tuuti. fii ku fi dëkk fii man su ma dee def ñaawteef tey damay de ba fu ma xamee woon ma defee ko fa kon leer nañu ni ndax xale yi nee nañ scooter la yor ku góor. mais ku góor kooku jurul. ku góor ku góor moo suul. loolu lañ wax ni ku góor moo ko suul. ku góor kooku jurul dañ ko ko sant mais yaay bi def lii def na lu bon def na lu ñaaw police nag na def liggéeyam te monsieur le maire ñu ngi koy wax ni ko géej gii nañu fi tegal ay gardien pour en ëllëg ndax fii suñu doom yi ñoo fiy nekk di fubal di sangu suñu yaay yi matin bi fii la ñuy defee sport. suñu papa yi tamit noonu ndax géej gi féex mi muy génne macha allah ñëpp ko bëgg suñu xëyee fajar ñëpp fii la nekk kon monsieur le maire na jël jumtukaayam ci géej gi. ban heure ngeen jot ni la ko suul. xamuñu ñun nañoo toog rek dégg information bi. comme est-ce que du sànq. yàggul léegi la nii xam naa. waaw 10 léegi may leen ñu comme ñun bu ñu xëyee dañu dem Dóori waar xale yi ñoom ñooy def bu ñu jàngulee ñëw géej ñoom ñoo gën a xam si information bi dara mais loolu moom lu ñaaw la lu salte la lu tilim la ndax yaakaar naa ni jigéen bu demee ba jur war a mën a tëye. di wax tamit suñu doom yu ndaw yi nga xam ne dañoo toll ci jàng nañu jàng xale yu góor yi nañu dimbali jigéen ñi waaw ndax ëmb ak wasin dafa metti mais nag suñu dëkku Baay Laay bii nag kenn mënu ko tilimal kenn mënu ko tilimal waaw ndax ñu biñ fi juddoo ba fii suñu joonu yàlla tey ñaaw teef mosuñu ko gis ñu ne doomu Cambérène moo jur doom sànni ko ci géej gi mosul am te kenn mosu ko jàpp man de mosuma ko dégg man Yacine mosuma ko dégg waaw kon ñi ko fiy def ñëpp ndax yàggul woon dara bi ñuy kii pon bee keroog man foofu la ma fekk sulli nañ fa benn liir ñu tax ku ci mbuus bu verte muy lu metti ñu koy naqarlu ndax fu mu nekk nii buñ leen suñu xool tooyu la ñuy wax rek ndax dañoo jur doom te xale bi kenn xamul ëllëg lan la waroon mën a doon waaw ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax i metti na ndax képp ku yaay rek li metti na si yow ndax man sa ba mu kaw yëgee dafa metti si man ndax ndax samay doom sa sama fit dalatul woon samay doom sa dama wootee laajte ndax jàng nañu wala jàngiwuñu loolu laa si mën a wax daal ndax waa kam man Cambérène sañ sañ ñemee woon naa sàcc amul woon dara wante lii tax na ma gën a ragal Cambérène yow en tant que en tant que yaay ah, en tant que jigéen nga gis sa moroomu jigéen jël doom ak doom ni mu neexee si xol quelles que soient circonstances yi mu ñëwee ñu jël daal di koy suul fii yow loolu noo ko noo ko dundee ah metti na moom metti na moom ñu mayee ko sax man bu ñu ko woon sax ñu dël ko wante metti na moom en tant que yaay moom metti na moom metti na moom ndax ñun ñu ñemeetu man mi ñemeetu ba génn yónni sama doom sa bitig ba moom ndax maa ngi ragal ndax ragal naa bépp ragal nag moom ndax samay doom si ñemeetu ma muy mag muy góor ñemeetu ma la yónni man maay demal sama bopp ñëwal sama bopp pour yow euh, sa gis-gis lan moo war a tax euh, lan ma war a jaral nit ki muy muy def nii dul doom ak ni mu neexee pour yow lan moo war a tax lu mu munti demee rek mënoon na ko maye wala mu téye ko lu mu munti demee rek mënoon na ko maye wala mu téye ko ndax doom boobu xamoo bu màggee kan lay jëriñ xamoo ndax mooy nekk président xamoo ndax mooy nekk leneen mais est-ce que du leen xaw a tiital tuuti parce que Cambérène diggante bi yëpp kenn xamewu fi kenn amul fitu sax di ñëw naan nga fiy teg liir rawatina ngay am temps di ko suul bay dem est-ce que insécurité bi tamit du law ba fii nga yaay. ah waaw loolu laa xool man loolu laa wax sama waa kër man nag bu yeboon na ngeen def attention bu baax géej moom bu yeboon ngeen wàññi ko ndax xamuñu kan la te dégg fu ñu jaar jàpp ko ba pare ndax xamuñu kan la ndax sécurité bi moom des na moom am na moom wante des na trop sax des